dañuy jàppale ñun ñëpp suñu bopp jàppale son excellence pour réélire ko le 24 février dès le premier tour 2019 parce que ñëpp xam nañ ne son excellence lu muy liggéey gis nañu lu mu def ci biir Sénégal donc kooku jàppale ko war nañu te tamit am nañu lu ñu jaaya ah. ku jaay bilan son excellence am na lu mu jaay donc ñun ñëpp nañu jaay bilan bi waaye duma pare nag te waxuma waxu Dande Maayo loolu laa waxoon léegi ma bantu ko commencé par Nawel ba dem Batem Bankaani amuñu piste ñoo ngi lancé l'appel son excellence mu jàppale ñu ci piste boobu parce que piste boobu dafa gàllankoor mbirum Dande Maayo déplacement yi day jafe faju bi day jafe boo jógee fi Europe ñibbi day jafe donc ñoo koy ñaan mu gestu waa Dande